bismillaahi rahmaani rahiim rabbi srax li sadri weesir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu xawli bokk ñu déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu asbaxnaa wa asbaxal mulku lillah walhamdulillah wa laa ilaha illa allah wallahu akbar allahumma inna nasaluka xayra ma fi hada wa xayra ma baad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 jaajëfal alxaaji sañ Mbàkke si lem mi nekkoon ci jataay bi ñaanu ko tawfiix sutura ak teraanga ak poche def dara ay bis gi nu génn <clears throat> xanaa nu def rappel ci comme réunion bi ñëwaat nañu xale yi ñëwaat ñu jox secrétaire u bi mu war a fàttali xale yi tomb yi ñu tolloon ñu door a ñëw ci subitu réunion bi <clears throat> tabarakallahu dañoo tolloon ci introduire li waral réunion bi noqale yi waaye ñëwoon ci waxleen leen tomb yu am solo mooy ku am jafeñ-jafeñ sa digganteeg pénc mi waaye fàttali woon xale yi walla jox leen tâche yi nga xam ne moo leen di xaar léegi nag tolloon ci question réponse yi ci wàllu réunion bi <coughs> question réponse yi question bi njëkk am mooy luy lislaam question bi njëkk am mooy luy lislaam luy lislaam bi ko ndaw ñi laajee <coughs> ñu góor ñeeg ñu jigéen ñi ñi am ci penc mi quinze ans te amagul cinquante cinq bi ñu ko laajee laaj bi am solo lool amal solo pénc mi amal solo gone yi di reeñoo gone laaj ko waaye mu laaj laaju bu mag ndax bu nu demee ba ay vingtième siècle wala quatorzième siècle alhijriya ñuy laaj luy lislaam nit mën na koo dégg ne waaw kii lu mu bëgg wax loolu nit mën na koo dégg waaye gone gi ko laaj yow sa âge moo toll ci xay na fi mu toll waaye xale bi nga xam ne dix-huit lay door a am jàpp vingt vingt-cinq trente moom sëñ naa laaj-laaj bii ndax élection yu jot rek dangay am koo xam ne kii a ah, élection yooyu ci la amee sañ sañ wate ci aajam koor gu jotit da gis koo xam ne kii koor gi ci la ame eh, ati woor war ko ila axiri ila axiri ila kon bu ndaw li laajee luy lislaam moo sañ sañ na koo laaj mooy yey laaj ko man nag bi ñu ma ko laajee dama daa delloog ñoom rek ca démbi lislaam kera ba alayhi salaam yebalee ñoom jaafar ak ñam àndal yu góor a ko jigéen yebal leen ñu dem ca Najaashi bi ñu demee ca Najaashi bañ topp si leen bañ leen topp see ba ñi leen topp si wax lañ wax yi dafa def ni kilifa war a def kilifa gu dégg ci njabootam dara boo nekkee benn nopp def looy rëccu bu sam xol sotee nga def looy rëccu waaw bu neexitu discours amee nga def loo rëccu buñ la joxee neexal nga def looy rëccu boo bëggee bégloo ka yónni ndaw ñi def looy rëccu yi dégage yooyu yëpp ne nañ ko wooxal jullit yi nañ ko wooxal ganam ñi ñu woo gan ñi fekk gan ñi ndékki nañ ba noppi ñu ñëw Najaasi ne leen lu leen jotaleeg seeni bokk saaba yëpp xoolante ne Jaafar tontu ko ay bis gi nu génn bi ñuy jeexal jataay bi moom laa doon jéem a wax ci arab bi waaw gone yi comme ñi ci dégg arab bariwut ma tekkil gone yi la jaafar tontu woon jas yi bam ne ko lu leen joteleeg seeni mbokk baat bu réy réy la yéen lan moo leen joteleeg seeni mbokk lu xew ndax bu fekkee ne ña ngay tëral nit ña ca naaj wa ña ngay dóor nit ñi ña ngi leen tegi xeer ci seeni dënn ña ngay rey jigéen ña ñee ña ngay dagg seeni ween ñee ñee métti métti lool léegi Najaasi war naa laaj kon yéen lu ngeen def allahu akbar Najaasi lu leen jotaleeg seeni bokk allahu akbar laaj bu rëy la lan nga def yow ba yu métti yi di la di la dal saxaaba yi xam kenn ci ñoom ku ñu wax jaafar ñu def ko port parole ne ko takallam ijabatan an sual malik an najashi ndeysaan jaafar ibnu abi talib radiallahu taala anhu ne ko ayyuhal malik ayyuhal malik waaw son excellence waaw jox ko cër bi mu bi mu yépp mu jox ko ko ndax loolu leen diine jàngal ndax li raw na dëng dëng kera ba Muusaa jàkkaarloog moom sunu borom daf ne ko ah, yow mi yàgg sa frère bi fa quulaa lahu qawlan layyinan na seen wax na seen wax nooy bu leen yu ko yuuxu ndax kilifa la bu leen ko gëdd ndax kilifa la <clears throat> bu leen yëkkat seen baat ndax kilifa la wax ma laa la ngeen koy saaga mbaa ngeen koy xas fa quulaa lahu qawlan layyina di sa loola jaa jàpp jaafar mu ne buur ba ayyuhal maliku <clears throat> ne ko waaw mu ne ko ñun de ay ceddo lañu woon discours bi tàmbali na ayyuhal maliku mu ne waaw mu ne ko ñun dey ay ceddo lañu woon ceddo ñaara am ci pénc bi ceddo ak muslim maanaam insaan jahili walla insaan islaami ñaar ñu ñoo fi am ñaar ñu ñoo fi am discours bi mooy koo xam ne kii daal lislaame ci li muy def ak koo xam ne kii lislaami wut ci li muy def moo tax pénc yi léeg-léeg ngis pénc moo xam ne mi mujtama islaami la ak pénc moo xam ne mujtama jaahili la péncum ceddo ak péncum lislaam péncum ceddo ak péncum lislaam mooy pénc moo xam ne duñ laaj lislaam ak sunu boroom ak yonent bi lu nuñ koy doxale mu loolu mooy péncum ceddo pencum lislaam nag mooy penc moo xam ne lu ñuy def lu ne foofu lañuy sukkandiku fa la ñuy dellu mu ne buur bi nun ay ceddal nu woon dañoo doonoon ni ceddo ah mu ne ko waaw mu ne ko nag ma firil la luy ceddo ma firil la luy ceddo nga xam ne kon ñun dañoo doon ni ceddo waaw suñu pénc nekk péncum ceddo waaw xawman kunnaa xawman kunnaa ahla jahiliya mu ne ko luy ceddo mu ne ko dañ daan jaamu ay bant ñun ñi taxaw ñépp ku ci nekk sa papa am na bant boo xam ne bant booba mooy yàllaam dañ ko mañ añ di may bant ba réer di may bant ba ndékki di ko diw ba muy nes nesi bant ba ne yëng waaw musu noo dem tool ba ànd ak bant ba mu dimbalinu kenn musu cee xiif bañ jox la nga lekk kenn mosu cee mar ba mu jox la nga naan waaw bant baa nga ne yëg nga rek waaw waaw ni bant yi ne ci pinc mi ni yëng bari bay bëgg a dee waaw tabarkàlla mu ne ko noonu ay ceddo lañu woon ndax dañ daan jaamu ay bant najaasi na tekk mu ne ko dañ daan lekk médd Hmm? ay ceddo lañu dañ daan jàmm ay bant di lekk médd médd mooy lu dee te rendiwuñu ko léeg-léeg ci dëkk bi nga gis koo xam ne kii mi ngi lekk sold bu ñu rendiwut mi ngi lekk alal ju ñu rendiwut alal ju médd waaw alal ju médd nga xam ne alal ji sold bii kenn rendiwu ko waa kër gi di ko lekk ba mu nekk poson ci ñoom xale ya naqare yar kër gi mënuñoo juboo bu dee entreprise foo leen fekk coow laa nga ne kur bu dee société noonu pour quoi a des personnes yoo xam ne dañuy lekk euh, dañuy lekk solde bu médd waaw dañuy lekk solde bu médd allahu akbar wala ay somme yu médd waaw wala projet yu médd mu ne nun ceddu lañ woon di lekk médd ci waaw di lekk moo tax fi ni nit mën naa seexlu médd nag wu dee xar mu dee bëy wu dee mais ngi lekk médd waaw mi ngi lekk médd ndax boo waxee nit kàddu gu baaxul jëw ko mbaa nga xas ko mbaa nga tuumaal ko loolu nga def yonent bi nee na lekk médd ko tane ala kulli xaal najaashi mu ngi déglu jaafar jaafar a koy wax luy lislaam mu ne ko wa natil fawaash njombu téef wu ne ci dëkk bi ñu ngi koy def njombu téef wu ne ñu ngi koy def waaw jëm ci col gu baaxut gi jëm ci relation yu baaxut yi jëm ci ànd yu baaxut yi lépp ñu ngi koy def mu ne ko waaw mu ne ko ñoo ngi doog bokk mi ngi koy limal ceddo gi ak fële ni yonente ba jëlee allahu akbar jël leen min mujtama jaahili indi leen ci mujtama islaami mu ne ko dañ daan dañ daan dogog bokk dañ bokk ñaar ñuy seen ñu ànd bala ñoo am jàmm tàqale leen fu ñu dégg ko wax ci mbokk dara ñu toxal loola yët kële toxal ca kële yët kii waaw xam naa bu doon tey whatsapp moo ci dimbali nit ñi dogoog bokk allahu akbar dogoog bokk hmm? eh, sëñ Moustapha Saliou daf ñuy nekk lu am solo ci ak bokk waaw mu ne am mbokk dëgg mooy ko xam ne kii boo tasa boo tasaaroo woon day wutub saako dajale morceau yi def ko ci waaw am na lu mu ko ci wax nu am solo yal na ko yàlla yokk wér waaw Najaasi di déglu Jaafar di wax jox Jaafar ne ko dañ daan dogoog bokk ndax ay cedd lañu woon dañ daan ñaawal aw dëkkin dañ daan ñaawal aw dëkkin sa dëkkandoo loo man ci lu baaxul def ko lu la intéressé nga def ko lu la sa bakkan may wala sam xel rek nga def ko sa yoon nekkul ci sa dëkkandoo allahu akbar bu guddee bu la neexee tee koo nelaw su bëccëgee bu la neexee tee koo nelaw wala tee koo noppalu du am jàmm aw fitam du dal rek waaw mu ne ko ku ëpp doole sa morom nangu lam am mu ne mi ngi koy limal fi leen yonent bi fekk waaw yii muy lim ni mooy mooy mujtama jaahil yi péncum ceddo mu ne ko yii ci yële nu yonent bi fekkoon ku ëpp doole sa morom lekk lam yor allahu akbar waaw ku ëpp doole sa morom lekk lam yor muy ku ëpp ay pexe ku ëpp ay pexe ca ñañu ca ñay ca magistrat ca avocat ya ca juge ya ca greffier ya ku moom daal ku fa ëpp ay pexe rek mën nga lekk la sa moroom am waaw bu dee terrain ngeen di xëccoo bu dee oto ngeen di xëccoo bu dee kër ngeen di xëccoo lu ci mën di nekk rek ki ëpp doole daal moo jàll hmm? mu ne ko ci lii li nekkoon jeexagut de mu ne ko pénc mi kon mooy péncum ceddum gi ci yi la ñu nekkoon di jaamuy bant di lekk mbëdd di def njombuteef di dogoog bokk di ñaawal ci dëkkandoo ku ëpp doole sa moroom lekk lam yor ba yàlla yónni ci nun xatta baasa llahu ilayna rasula ba yàlla yónni ci ñun ndaw ba yàlla yónni ci nun ndaw waaw ci discours Serigne Cheikh ba ndeysaan waaw inna min niamillaahi yal na ko yàlla fayal Serigne Cheikh Ahmad Tidiane si Jaafar ne ko ba yàlla yónni ci nun rasulan ndaw mu ne ko ndaw loolu mu yónni ci nun la jóge maanaam ci nun la bokk soo fi limee ne kii ak kii ak kii lañ bokk gis nga mel ni ku ne ko man mii di wax man mii di wax maag baayam waaw wala bokk waaw sunu bàyyee bokk ndey ak baay mu ne ko man mii di wax baayam ak sama baay ñoo bokk baay mu ne ko waaw man mii di wax jaafar ibnu abi talib waaw abi talib ibnu abdul muttalib mu ne ko Muhammad ibn Abdullah Abdullah ibn Abdul Muttalib kon maag moom sunu bàyyee bokk bàyyi mu ne ko rasulan minna lisaan allahu akbar rasulan minna moo tax laqad jaakum rasulun min anfusikum mu ne jaafar xam nañu askanam kii yàlla yónni ci ñun xam nañ am as aw askanam xam nañu yaayam xam nañu baayam xam nañu ki yaayam xam nañ ki jur baayam waaw xam nañ ay bàjjanam xam nañu ay najaayam nangam nangam limal ko ne ko xam nañu askanam du étranger ci ñun du gan mbokki réunion bi bi xale yi toogee ma leen di firil discours jaafar bi bu bu weñ naa woon ñu yëg ko fi nu toog maak ñoom saal bi ne selaw waaw <laughs> saal bi ne selaw waaw xale yi xale yi jox importance réponse bi ndax art d'écoute dafa am waaw art d'écoute dafa am bu nu yàlla mayoon ñu nekk ñu pédagogue bu nu waxee pénc mi pénc mi déggunu bu fekkee pénc mi ñu am nañ art d'écoute waaw écoute nag moo gën a jafe parler waaw <laughs> waaw maanaam wax wax jafe na lool waaye dégloo ko gën a jafe déglu jafe na lool waaye dégg ko gën a jafe dégg jafe na lool waaye jëfe ko gën a jafe ala kulli xaal mu ne ko xam nañu askanam ba ca tege xam nañu ak dëggoom kero bam nekkee ci sunu biir nekk xale sunuy nopp ba fii nu taxaw mus kenn ci nun mus te xam wax lu dul dëgg waaw lu dul dëgg mukk mus ta génn ci làmmiñam wi ca làmmiñam wa wa amaanata ñun ñëpp a xam ak wóoram waaw genn kees musu fee këpp ñu ne moo ko këpp wenn weccet mus des gannaaw ñu ne moo ko desal gannaaw waaw waaw mus ta gisal xari kenn te loolu ku kuñ ko wax ci yonent bi nga gëm ko ndax boo laajee Xadija keroog ba mu ne ko kaay nga ànd ak euh, kaay nga ànd ak xale may sara mu jàngal nu ñuy jaaye keroog la may Maysara waaru moom di jàng di ko jàngal njaay far mu jàngal koom njaay mu ne ko xam nañu ifaafa ifaafa ifaafa mooy moom biñ ko xamee ba léegi kenn mësu koo séen mu ŋàbb ci loxol ji gone gu jigéen mukk kenn mësu ko xam waaw mu ne ko ah maanaam lee lañu nekkoon moom lii lañ xam ci moom léegi suñu relation ak moom mooy def noo woo li tawxidillahi daf noo woo nenu àdduna si daa am ku ko bind bind nu nu fi waaw kooku lañ bëgg ñun ñëpp ñu wéetal ko bañ koo bokkaalee teg dara loolu la njëkk a digal moom yonent bi jaafar mooy mooy mooy wax najaasee ngi déglu julli jaa ne tekk tabarkalla mbooloo maa ngi ne tekk waaw dara yëngatuwul mu ne nu bant yi ngeen daan jaamu bàyyi leen ko bant yi ngeen daan jaamu bàyyi leen ko nit moo ëpp maxaama moo ëpp dayo moo ëpp solo ab bant ab bant tekkiwul dara luñ ko rafetal rafetal rafetal muy leen waaw mu ne nu te nu bàyyi fen hmm? mu ne te nu bàyyi fen lu waay di waxati na nekk lum nar lu waay di waxati na nekk dëgg ndax fen baaxul baaxul ci pénc fen baaxul de déedéet pénc moo gis économie bu doxul rek fen a ko yàq ndax saa boo bu fen amee sax Ahmed Dame Ndiaye nee na <laughs> yàlla na ko yàlla yokk wér nee booy leb nit bu ca fen duggee rek boo lebatee keneen du la lebal waaw nee na misaal mooy bu fekkoon nit dafa ñëw leb nit euh, juróomi téeméer nee na waa ji lebal la juróomi téeméer waaye lu jiite nga koy leb juróomi téeméer daa am koo njëkk leb mu ne la man de maa ngi séentu juróomi téeméer suba ci huit waaye fi ne euh, juróomi téeméer nekku fi nga dem lebi pour bu la kii fayee nga fay kee nga dem kee leba la juróomi téeméer nga jox ko rendez man onze jàpp ni kii huit heures dana la fay ndeketi yoo du la fay dara du la jox bi heure bi jotee kee gisu la day jàpp ne yow yaa waxu dëgg ndekete ka nga njëkk a jaar ci moom te lébalu la ba noppi dig la te day fen kookala moo tax suñu borom mere ñi nga xam ne euh, dañuy wax luñ dul def kabura maqtan inda allahi an taqulu ma la tafalun mu ne ko mu digal nu nuy nuy delloo ndénkaan lun la dénk bul yërëm nit ba dompal ko ca léeg-léeg gis ku ñu dénk ñaari million ñaari million mu domp ca deux cent mille lebal professeur ji bi ca ngoon borom million yi ñëw ne ko xaaj bi lay jël si nga am problème wala kee lebal ñaari million yi moom du la fay te amuloo fayee kii nga am problème alali jàmbur buñ la ko dénkee doo ko lebal kenn ak lum yërëm yërëm tëlu ak lu métti métti boo ko lebalee rek doo dem loolu la pencum lislaam di xam pencum ceddo nag moom tabarkàlla da ngay leb la ñu lebelewaat ko <laughs> mu ne mu digal ñu ñuy dog jokk bokk mu digal ñu ñuy jokk bokk waaw ñëpp defaraat bokk gi ba bokkaat ndey ak bàyyi mbokk yi xale yi jeunes yi góor ñi jigéen ñi réunion bi jeexut nan yàlla may ñaan yàlla may dund ba ëllëg te weesu ko bu leen neexee ci kanam surtout ngeen woote ci 88 628 98 98 ngeen bës 2 ci seen jotaay bii am lundi ak mardi di tàmbali 8h di jeex 10h jërë ngeen jëf ci ànd beeg Sud FM seen rajo ak seen ñu fa war a yëkkatee jotaay bi ndax suñ mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi ne tax yor seen i këyit. bëgg la na firiñ fànceel xibaar tuuti firiñ fànceelal ko ci wolof ñaan leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi ak suñu sponsor mii C3S yàlla na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poste dara naan dana coxtaani moo di seen mbokk Alioune Sall in uridu illa al islaaha ma tatatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu